alhamdulilahi rabilalamin wasalaatu wasalaamu ala sayidina muhammadin tibbil quluubi walmulaqabi bil amini wa ala alihi wa asxaabihi tayibina tahirin bokki réew mi bokki àddina bi ñuy seetaan seen mbokk di kenn ci doomu senegaal yi bokk ci famille Kunti ñu di ko wax Abdourahmane Kunta yàlla natt ko itam mu yore baatu xalif bi ak baatu njaboot gi ñoo dellu siwaat di yëkki kàddu yu gàtt yoo xam ne rek dañ ko jiitale nuyoo mu jëm ci askanu senegaal gépp waaye jëmit ci kilifa diine yi kilifa diine gi ak kilifa aada yi kaddu gi may yëkkati nag kàddu jullit la moo xam ci kadaru jottali kaddu xalifa bi la ci toogaayam en tant que jullit gàddu itam responsabilité bu mag jiite benn communité boo xam ne communité xaadir la mu yëngu ci diine moo xam Abdourahmane Kunta moo xam ni ab jullit la ñu gaañ pas-pasam wax ko loolu dugg ci xolam mu metti ko naqarlu ko war a yëkki kàddu yoo xam ne dina firndeel naqar boobu nga xam ni am na ko bokk ko mbokki jullitam yépp waaye ci kàddu xalif bi lay waxe ci suba lañu waxtaan ci mbir mi mu naqarlu ko lool wax ma it ne ma ne ñu yëkki kàddu pour naqarlu li nga xam ne am na ki wax wax ji jàpp naa ni amul dayo bu ñu ko war a tontoo waaye nag kiy dégg te xamul nekk ci biir réew mi mbaa ci bitim réew te ki wax wax ji amoon fi benn daraja bu mu yore woon ci wàllu àddina kooku di Moustapha Diakhaté xëy na ki xamul xelam guddul amul benn maturité bi mën naa dégg wax ji dafa ne waa ji wax na dëgg nit kookoo tax ñuy tontu moom la ñuy gindi mais du ko wax wax ji moo tax ñu ne jàngkat yi wax ni soo déggatee wax bul àttee wax ji te xamoo ki wax wax ji kan la nattal dayoom maa ngi koy junj rek sànq ci lu gàtt muy baytu boo xam ne Sëriñ Tuubaa waxoon na ko rahmatullahi alayhi dafa waxoon ni wasiatul maydaani laa yux fiiha nam latin suluukan fiiha daf ni yaatuwaayu pénc su mellentaan taxawee wala xorondoom lànk ni duma ci jaar nee na pénc ma du ko tax xat day yaatu rekk kon Moustapha Jaxate baatu Moustapha ji moo jaaxal ñu bari waaye ku dégg arab xam ni langu arab tëdde baatu Moustapha fu ne la mën a ñëwee Moustapha mooy lu ñu tànn jikko ju ñaaw ba ca gën a ñaaw des na ko tànn jox ko ki gën a ñaaw ca askan wa kooku mënees ta ko mënees ta ko tudde Moustapha kon ci ñaari boor yépp la moom nag moo tànn fi mu féetale boppam waaye li ñu koy wax rek moo di yàlla du nit ba tax njuumte di ko mën a gàllankoor yàlla lu mu def rek ci xereñ la ko defee yàlla dafa tànn yonent bi alayhi salaatu wasalaam tànnal ko càllaleem fi muy jaar ba ci baayam di abdullah ba ci ndeyam di aminatu nee moom day baayam ak ndeyam ñoo gën baayu yonent bi ak yaayu yonent bi ndax moom bàyyam juddu na ci lislaam ndeyam juddu na ci lislaam te ñëw ba ñuy juddu judduwuñ ci lislaam wax na dëgg waaye boo ko moom mu Ba boo ko laajoon baatu lislaam xamu ko waaye rek pour mu wax ko tànneef bi nga xam ni yonent bi alayhi salaatu wasalaam tànn na ko way juru yonent bi mooy Abdullahi bi mu amee fukki at ak juróom-ñett nekk ci biir Makka doon waxambaane amoon na ay soxna yu ko daan kar di ko sàkku ba dig ko alal duñ ko war a jox pour mu joteeg ñoom def leen a tontu tontu bu doy waar daf leen ni amma alxaraamu fal mamaatu duunahu lépp lu aram day loolu sama bakkan def cay root waaye duma ko def as goro ngoog ku gëm yàlla ngoog ku xàmmee lu dagan ak lu araama ngoog kooku tey soo ko bëggee suufeel bëgg a jël sa baay teg ko ci kawam yow day ah dana la wax benn mbir de <clears throat> dana la wax ne la ña noonu woon jibril noonu mikail noonu israfil noonu Azraïl ba yàlla tontu leen yaa ngi ñoom yam taxawaay tey tey gaañ nga xolu jullit yépp nag du senegal rek mais monde islamique yépp laa wax sànq maa ngi wax ak benn kilifa boo xam ni kilifa aada bi mu ñëwee dama ko ni dina lancer benn appel boo xam ni ña ma cay joxoñ mooy gannaaw kilifa diine yi ba noppi maa ngi joxoñ kuréel bi nga xam ni moo ëmb imaam yi kuréel yi nga xam ni ay association islamique la maa ngi leen di duut baaraan di leen joxoñ pour ñoom ñëpp ñu taxaw porter plainte ki wax wax ji parce que fii xas nañ fi ay kilifa ñu leen xas ñu jël leen dugal leen ci kaso bi amuñu nag benn kilifa bu dul yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ñu gënal suñu baay gënal ñu suñuy maam gënal ñu suñu njaboot gënal ñu suñuy ndey gënal ñu suñu bakkan bii nga xam ne moom la ñu yor yonent boobu alayhi salaatu wasalaam kii nga xam ni moo wax wax yi jëmale ko ci moom eh, dafa wane jikkoom rek arab yi nag dañu ni sëmmin kalbaka ya'addak duufalal sa xaj mu matt la duufalal sa xaj xaj bi màtt la nit su demee ba benn situation bi dab ko am na lu muy wane loo xam ne mooy dëgg-dëgg jikkoom loolu nag mbewte la bu ànd ak naqar bu ànd ak nga def ni li la dal nit ñe la ko teg gëmatuloo ni sa wërsëg moo jeex ca daraja ja jeex ca xaalis ba jeex ca pouvoir ba taxaw nga taxaw nag démb la nga daan rafetlu di ko taggee nit tey nga di ko ñaawlu di ko ko xase loolu du ji koy gor kon nag na xam ni gaañ na xolu jullit yépp nag te ñun de ñu ngi ñaan yàlla subhaanahu wa taala ci barke yonent ti alayhi salaatu wa salaam plainte bi ëpp doole ñu di ko déposé déposé nañ ko ci yàlla jox nañ ko ko ci sunu diggante ak Moustapha Diakhaté waaye du tee nag plainte bi nga xam ni daf ñoo tënk ñu bokk réew mi danañ ko jébbal ñi nga xam ne ñoom lañ ko war a jébbal maa ngi balu ñëpp xàq na ci wax ji nga xam ne wax naa ko léegi waaye lii ma wax. dama ko waxal bépp jullit boo xam ne gëm nañu yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo gën baayam gëm ndayam gën ndayam kon ñu ngi delluwaat di ñaan yàlla mbas mi yàlla na ko fi yàlla jële ci barke yonent bi damay wax rek li may tëje moo di tey miliyaaru jullit ak juróom benn téeméeri million nekk ci àdduna bi lu tuuti loo xam ni bët mënu ko gis bët mënu ko gis jaaxal àddina bi ñoom ñëpp ñu riir tàllal seen i loxo di ñaan te yàlla tontuwul jullit yi ñu seetaat seen bopp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.